clic senclic.com site bu am solo la léegi laa pare waxtaan ak ñoom waaye yéen ñëpp ñëw leen abonné ci parce que information bi am na solo euh, te loolu la ñu bëgg tey wasalaam